Euh, muy euh, la procédure de levée de son immunité parlementaire c'est en 24 heures ça en violation totale des dispositions du règlement intérieur je vous le je vous xam nga Ousmane Sonko il a eu un excellent parcours politique de 2014 à 2019. franchement je te félicite ba ba ba ba sax euh, ça allait mais avec cette histoire Adji il n'a pas il a perdu le il a perdu le contrôle et il a perdu la tête aussi parce que succès bi dafa dafa dafa dafa bari woon il il il n'a pas supporté le succès je je je je m'explique. xam nga xam nga cette histoire de de de de viol bu bugguma ci dellu siwaat mais j'admets et je l'ai dit. <laughs> Euh, on accuse quelqu'un de viol de menace de mort à la fin de la fin après deux ans de crise de crispation euh, créé fi ay clivage jaxase réew mi séparé réew mi séparé sénégalais yi euh, on nous dit corruption de la de la jeunesse je ne minimise pas corruption de la jeunesse je suis un parent et mu minimiser wu ko mais c'était quand même triste comme comme comme verdict alors euh, ce qui s'en est suivi moi vous avez combattu au, côté d'un homme muy Ablaye Wade li mu subir Ousmane Sonko n'a pas subi le tiers mais lui il a su garde il a su euh, euh, garder la la la tête froide ba tombewul ci piège régime bi y a y a des dérives au, au sein de la au niveau de la justice hein, il faut le dire il y a des procédures yoo xam elles sont politisées euh, da ngay xool nga xam ne lii. politique da koo lal ah? Ablaye Wade faisait face à qui à Abdou Diouf. mais Ablaye Wade. Eh, Abdou Diouf il était politiquement plus mûr. il était politiquement mieux préparé il a tenu et il a vaincu. Alors, j'apprécie maintenant ses adversaires Euh, euh, euh, photographie boobu ak comparaison boobu. Ousmane Sonko n'a pas pu vaincre. ok n'a pas pu s'en plus rigoureuse ah. ci sa raisonnement. Ah. mooy nee nga def nga comparaison entre Ablaye Wade ak Ousmane Sonko. non je fais pas de comparaison mais va plus loin. Ah. maintenant compare maintenant Macky Sall et Abdou Diouf. pour que pour être plus complet plus rigoureux dans ton raisonnement est-ce que Ousmane Sonko avait quelqu'un comme Abdou devant lui. qui respecte l'état de droit qui respecte le droit non Abdou Diouf bi ma xam ak bi nga xam je dis bah, c'est un c'est un leader comme tous les autres mais je pense quand même que c'est pas du tout les mêmes rapports à l'état c'est pas du tout les mêmes rapports au droit donc ni ngeen bëgg condamner simplement c'est trop confortable mais c'est c'est c'est une machine. mais on n'a pas Ismaïla Madior Fall ici aujourd'hui mais mais tu, tu es sa euh, place là. <laughs> non on n'a pas Ismaïla Madior Fall on a euh, Moustapha Mamba Guirassy. waaw mais <laughs> membre de euh, donc nu mu ci sa côté lay kii xam nga et puis parlant de Abdou xam nga régime socialiste moo dafa dafa consacré suñu longue marché démocratique Abdoulaye Wade a vécu les bourrages d'urne Abdoulaye Wade a vécu les arrestations arbitraires soir d'élection on embarque tout le monde cas euh, prison Abdoulaye Wade a même été amnistié Euh, après l'affaire euh, maître baba euh, Babacar Seye ñu jàpp ko amuñu benn preuve embarqué ko embarqué ko toute toute la tête du du PDS euh, yóbbu leen Abdoulaye Wade s'est battu corps et am pour imposer à Abdou Diouf des règles du jeu démocratique et Abdou Diouf a eu le mérite d'avoir en moment important importants de l'histoire su prendre les bonnes décisions c'est-à-dire dañuy wax tamit mais nañu dañuy euh, fàtte ne euh, euh, on vient de très loin vous savez je sais pas ce que vous appelez bonne décision gis nga man jullit la te des fois dee dee pour la cause yenn saa yi bañ a dee sax xëy na nit safara nga xaw ma ndax dégg li ma wax de jullit yenn saa bañ a dee moom la ñu jàpp ni yow traître nga nitu safara nga en réalité ce que vous appelez yéen comme problème ak Ousmane Sonko wala ñun ñii yeewi askan wi parce qu'il faut quand même quand tu es dans une démarche comme celle-là de combat il faut aussi nga sóoraale les difficultés les difficultés mooy ñu dissoudre sa parti les dif et puis c'est pas il y en a eu en Afrique mooy ñu tëj la kaso mooy Mandela keneen maintenant que ñu tëj la kaso quelqu'un dise ah waxoon naa la ko donc ce qui veut dire que yow li nga doon def yëpp ak sa doxin say convictions c'était faux attention. balaa nga euh, naan naam ne fa. non non no non non mais je suis pas d'accord avec ça. bu ñu dissoudre sa parti. gis nga tëj la kaso nooy combat non yaa ngi fi ba léegi parce que les gens yoo xam ni ñoom nga partagé un idéal avec ñoom. am nañu gëm-gëm y une flamme boo xam ne allumé nga ko cette flamme là est là mais les les gens qui. Euh, euh, qu'est-ce qui se bat aujourd'hui les Séné non le combat vous savez. les gens ils ont déserté le terrain. ku ci nekk sa bopp nga tal non gis nga. Euh, yow laa gis fan yi euh, déedéet ndeysaan nga ñëw porter combat bi. Euh, du yow laa gis ñeneen ñi ñëpp ku ci nekk yow. Maïmouna Bousso. déedéet la laa gis ngeen porte le. combat non tout le monde tout le monde. <laughs> les gars on peut on déserté le terrain tout le monde tout le monde au sein mais au-delà de Yewwi Yewwi c'est le moins important mais ce sont les Sénégalais c'est la communauté internationale cette affaire-là est en train d'être internationalisée te min yàq loo xam ne aujourd'hui une nation c'est ce qu'elle a de plus précieux l'internationalisation c'est pas du fait de Yewwi euh, c'est de la gravité des problèmes mais moom laa lay wax moom laa lay wax tu me donnes raison je dis donc le combat aujourd'hui de Yewwi le vrai combat soo ne euh, diggatuñu wax seen programme etc parce que aujourd'hui il mooy la gravité de la situation gis nga Maïmouna y a une indifférence boo xam ne qui tue un pays qui tue une nation et il y aussi une façon de parler quand on parle des politiques quand on parle des parti euh, partis quand on parle de la coalition Yewwi Askan Wi en faisant du problème national du problème de demain du problème de l'avenir nga def ko mu nekk une affaire simplement d'une personne ou d'une coalition yaa ngi yàq sa askan sans t'en rendre compte et la réalité c'est qu'il faut un sursaut il faut qu'on comprenne que les bases de notre démocratie ñoom ñoo nekk actuellement di di di di di di nekk situation boo xam ni xamoo fu muy màbbee actuellement confiance boo xam ni démocratie bu nekk li ko téye dëgg-dëgg mooy euh, confiance confiance dafa am solo soo demee jël sa benn chèque ni da nga ko yóbbu banque kër la rek néeg la wante li tax nga mën a tëdd jox sa chèque c'est simplement yóbbu fa sa xaalis simplement confiance quand on perd la confiance aux institutions nga perdre confiance ci parole publique sa kilifa wax nga weddi ko force de l'ordre di dem euh, euh, am sax benn gàcce boo xam ni porter la tenue maintenant dafa commencer nekk problème ci ñoom parce que yenn saa yi dañ leen di pousse indi ci ay situation yoo xam ne assi assi je ah continue ah quelle, quelle, quelle je, force je, je, je continue, Je suis sénégalais. Il y a aucun militaire policier ou gendarme qui a honte de porter la ah, tenue. Ah si si si euh, je te dis. ceux qui en euh, honte. ma ne ma ne. ils ont quitté. non non booy euh, am na ñoo xam ne quitté nañu. Ah? am na ñoo xam ne quitté nañu am na ñoo xam ne ils vivent un profond malaise. non loolu loolu c'est un a pas de malaise. ce sont des gens qui ont décidé de se sacrifier pour la nation. ils ne sacrifient et qui resteront quelles que soient les conditions. ça c'est la grande nous partageons tous. mais la réalité la réalité c'est pas simplement au niveau des forces c'est au niveau de presque. tous les com mooy xam nga comme comme justice bi dafa tàng. waaw mais ma ñu accuser la ne da ngay décourager les troupes. Euh, déedéet euh, damay damay c'est important je pense que li ñuy wax nii honnêtement euh, c'est vrai que c'est la saison des mandats d'arrêt. ah mais mais mais li may wax nii c'est extrêmement important benn mooy justice je dis am na ñoo xam ne tey jii ñu ngi biir justice am benn malaise boo xam ne dañ koy dund par rapport ak justice nu muy doxee kooku mënu ko dindi li la gêné nii actuellement. par rapport à la décision de justice boo xam ni rendre nañ ko ci affaire Ousmane Sonko su dee sénégalais nga nekk góor am une vision bëgg sa réew su dee yow mën na la déranger gëmal ni am na keneen koo xam ne déranger. mais xam nga lan moo ñu déranger mais xam ne